nekk. maa ngi si jàmm. tàngaay baa ngi nii rek. eh fay dafa tàng de. dafa tàng ciir. ça va. <laughs> si loo nekk. maa ngi oh, oh. Ah, xanaa di nga wax ne sama bët yi nu mu lay xoolee nii regarde bi. mu la jaaxal de. regarde bu mu lan la. Ah, sa regarde daan du bu seer paa dégg nga bari dangar de masha allah waaw noonu la jéeg dangay bari dangar bari nga feen de man yàlla bu ma la catu waaye temps yi dangaa jonga ma moom temps yi dangaa jël sa gaad ay damay jonga ma ak coono bi ah yii yii taluma ko sax dama fekk la fii nga toog nga naan coono liggéey teg la say tànk man miy dox ci naaj bi kañ xanaa man maa war a am coono nah, waaye <laughs> du yow déggal kañ masha allah rek déggal ana sa raq bi moy fe ci biir fe di xol xalé yi du ñuy dag ak yoyu non hmm. muy surveiller xale yi moom foofu noonu di xol xalé sarak bi ma ngi fan nga ni. ma ne mu ci biir di sylvain xalé yi. Hmm. yow mu nekkate état esprit amo ci dara. Hmm. ndax sa esprit bi bu doon xalaat dig ma wax leneen waye tok fi teg la say tank machallah nga ne sarak mi ngi tok fe di yow gis nga wujju. wujju daa garaaw de yaa ngi toog fii du di noobale tegle say tànk di togg nga ba xamatoo looy nduróol ba sa loxoy wawoon koŋ ñu indi la fii macha defaral la ba sa loxoy nooy tegle fii nii nga bàyyi ko moom mu nekk si biti di jaaba jale <laughs> laa ilaaha illallah ku doon naatee faale de nee naa la ngoye ngi mu ngi dirigé de hmm. yow nga toog ngóor de sant la loolu Ngouda moom dañoo boole atelier bi moom moo tax kon Ngouda dañoo boole atelier bi moo tax. <laughs> Ali baba ko mën naa waaw bu la boolee atelier bi nag yow dangaa war a toog nii rek teg la say tànk rek ah di réfléchir di xool ban programme ngay teg yow lii yëpp di ay ñaw moom bu ko ñëwee xaas bi noo leen koy def yéen. jëndal ay marchandises rek ñëw. yow bàyyi ma ak kii mi ngi lay teg dil bu yàgg. kii teg na la dil ba mu xëccoowee ba ba ñëw fii waroon toog ca kër gi di togg di yàq loolu la waroon def waaye defu ko topp la foo dugg mu dugg fa xam nga ne mboq rek moo tax ñu tax ko waaye bu newul woon mboq fii lay toog nawet fi noor fi tax ko yow la bëgg yow nag loolu nga waroon xam ubbi sa bët bii xool waaye tax na léegi ba guuda dakaa bëgg ndax sa yëfi dof yi ngay def gis nga solo àdduna bi àdduna amul solo boo ko toppee da ngay tar ndax àdduna daa am solo taraanga àddina moom boo gis bët a koy wane. yow ngay aawa njëkk a juddu njëkk a baax waxoo kenn bonal <laughs> léegi mu wax la bonal. ah daa mel ne dañoo am gan. maman. ça kan nga fi ñëw. daa ngi fi ñëw léegi. ana xale yi. xale yi waa ñii dagg ñi ngi dagg ñii ñëw ñi ngi ñëw ñoom laa doon surveiller xam nga rek. dëgg nañu pare xam fan yi dafa bari. am nañ ba Espagne commande États-Unis ak France. loolu moo tax te comme que Ngouda daf ñu fee bàyyi rek dañuy xool xale yi ni ñuy doxalee liggéey bi bu baax a baax nga xam ne client yi heure bu ñu jotee seen ñëw rek daal di kontaan. man daal en tout cas la ma mënti wax moom tuuti rek te bu la kenn wax kontaanuma ci yow kontaan naa ci yow bu baax a baax ndax danga ñëw magoo ma dawal ci dara bu la neexoon nga ñëw defanteeg ma duma ci mun dara mais fii ma toog laay toog ndékki fii la may fekk añ fii la may fekk reer fii la may fekk man daal xamal la am nañ ñibbi tëj place bi ñibbi dem suñu yoon kontaan naa ci yow nguuru mënoon na la fee bàyyi nga ñëw di diiranteeg ma mag waaye defoo ko man daal damaa bëgg nga gën a góor góorgóorlu yàlla musal ñu si seytaane mhm. te xam nga léegi seytaane moom dañuy dugg ba ci biir kër yi ci place yi te dañuy yor seen nopp ak seen tànk ak seen gémmiñ mhm. yaa may dégg te nguuda waa Samsam 3 bi yëpp ku nekk xam na ko fii ba dakaar Europe ñëpp a ko xam muy ñaw ñaw yi rafet duma bëgg nag ñu jaar ci ay tànkam balaa ñu naan ah nguuda kat dafa dem kat ay jabaram di def lu bon te ku nekk xam na dafa mun ñaw ñu jaar ci ay tànkam te yow tamit benn seytaane bañ laa mën loolu daal laa bëgg nga defal ma ko. macha allah fi nga daanelee rek foofu laay jëlee parce que ku ne xam ne suñu jëkkër muy nguuda fii ci Samsam 3 ñëpp a ko xam macha allah muy atelier tailleur bu mag. dafa voyagé nag bàyyi ñu fii. kon ñun tamit dañuy toppatoo clients yi comme ni mu ko doon toppatoo parce que comme ni ñu koy waxee rek les clients sont les euh, comme noonu la ko tubaab di waxee. kon dañ leen di toppatoo rek nga xam ne heure bu ñu jotee seen ñaw dinañ kontaan. Euh, da nga ne dang mara ko man aussi tamit ma magoo la te dawuma ya ci sala yaay leer parce que nee wujju kat du xiro ak ñaayoo ah, ñaar ñu bokk wërseug rek la te dang ma fekk la ci biir kër gi machallah nga nekk aaw buru kërëm daal di tëddee na njaaxanaay ku ñow nga bot ko motax ah, man damay top ci sa ginnaw rek loma sant lool lay def loma digal lool lay bayyi di ñaan rek ah, yalla mussal ñu ci saytane ak waaye yàlla bu la gis nga saytane tay yor yor lay génn seytaane baxul de yor lay génn seytaane nit njaay la bu yor ay tankam di dox yor ay noppam ak ay loxom hmm. yalla mosal ñu ci seytaane ak pexem non ba nga xamantene rek ni ñu andé di jappalé suñu jëkkeur ñu jappalé ko non suñu jëkkeur hmm. man da lima bëgg moy ki mom bis ni ki tey moom nañ ko bolé ci li nga xamné moy suñu suñuy dama bëgg ñaari yi nekk ci biir bu rouge bu blanc mi nga ko mam bu jek xam mom dafa jongama mam buy bu benen bi nak ya xam taybaas ya xam grand nga defal ko après nga dem jëro jëloon dama si ok. ba xana contane nga. ma ko xanaa kontaan nga. dina dugg ci biir legi après ya, dina ñëw ñu jëlal ko Mazia. Ya? ñaari jasner nga koy jox man dina sey tek ben muy ñatt parce que am rose bu nekk ci biir rose bon. loolu neex na dina ànd ak ma sha allah sha allah. te nga wañi wax nak ndax moom temps yële ya, rek ñew na fekk ma. fi ma toog muy wax ci yow loo xamante ne naka sa noonu la heureusement bi ma xamee sa jikko xam yow yaay kan xam ne doxoo ci daray ñàkk fay la te gis ni nga ma bëggee bu doon keneen la ko wax sax ma ma tëggam mais ba ma ko waxee laa ko jël multiplier ko par zéro xam ne dara du ci def anam solo anam solo gis nga aw dañoo toll ci jamono goo xam ne dañoo war a jéggale di baale ndax ngat ngat fajul dara surtout nga nekk jéeg di sëy gis nga jéeg danga war a mot war a motir def nii ndànk affaire bi du fërfëre du ngan ngat ana am nañ ko jéggal rek nañ ko baal nañ ko baal boo boo yégee rek nañ ko nañ ko defaral lu baax ma na ko jéeg piir de comme yéen ñaar lay def xuloowu leen comme li waa ji waxoon de nee na euh, euh, noonu lu mu gën a bañ muy jasner wala sava naturel mhm. boo yeggee rek nañ ko defaral kii bu baax man dama waaye dama ne la jéeg lay mel xuloowu xeexu leen doxu leen ba ràpp tey ngeen wax ndànk dal ndànk yéen macha allah seytaane nag nee naa ba guddeeg lay dox. Ah. Mhm. amuñu jot sax amuñu jot bi. mais suñu philosophe xam nga la teel mhm. loolu jigéen ba ko saal loolu bu ne wax ju bëri moom doo ko yeyoo. wax ju bëri baaxul ndax ni dangaa war a wax tuuti. dangaa war a liggéey lu bari wax tuuti. Mm. dëgg la kay merci beaucoup. am <laughs> nañu yàlla lafal cat rek. te mosoo ñu seytaane. seytaane da lay topp ba des nii

merci beaucoup. je prendrai toute mon âme. ii dégg lii ah ci kaw ñu dégg de war ngay wax ci kaw nag yow si nga yow dégguñ ci dara nag. je sur la chaîne Elvision.